lii di àdduna bi yëpp ñu ngi daal di xeex lii di nga xam ne moo di Covid 19 benn benn bu ndey ak yeneen bunti nguur yi ñu ngi daal di dimbale nit yi ñi nga xam ne seen loxo jotut gannaaw lii di nga xam ne moo di ay lekk lu toll si 127000 dalasis jox nañ ko si 45 families fii si biir réewu Gambie. came here and we saw that the tourism went down. ñu neen fii fekk tourism mu tëj lu ko waral mooy feebar bi ñuy wax coronavirus tax na nag ñu bëri ñàkk si seen liggéey. loolu moo waral ñu waxtaane suñ mbokk yi ak suñu xarit yi ñu dajale nag xaalis boo xamante ne toll na ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junni. first of all we had the coronavirus but also. ñu ngi ci jamono coronavirus te koor bi jot na te ñu bëri ñàkk nañ seen liggéey nekkatuñ di liggéey loolu sax moo waral ñu waxtaane suñu mbokk yi ak suñu xarit yi nekk fële ci Sweden ngir ñu dajale xaalis ñu dimbale ko ñoo xamante ne seen loxo yi jotul seen gannaaw. Uh, talked with uh, some of the people at the hotel. and uh, they have picked out some families. jot nañu waxtaan nag famille yoo xamante ne ñoom sa hôtel bi ñoom daal dañu jot a wane ay famille yoo xamante ne seen loxo jotu seen gannaaw. depuis business yi ak school yi ñu ngi daal di tëj ay jamono bii nii njaboot yu bëri ñu nga xam ne seen loxo jotu gannaaw ñu ngi daal di soxla ndimbal torop si lii di nga xam ne moo di wàllu dund bi. Paradise TV News Momadou Koli.